di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm tey ñaan yàlla mu def ko ci àdduna bépp di leen remercier yéen ñi nga xam ni yéen a ngi topp chaîne bii di lu xew TV di leen wax rek ngeen continuer di abonné wu di partager vidéo yi ngir yaatal liggéey bi alors tey waa lu xew TV ñoo dellusiwaat ak yéen ci beneen vidéo analyse ci seen série maîtresse d'un homme marié donc tey bi ñu seetaanee épisode ba pare on a noté des points bëggoon ci def taxaw seetlu ak yéen bi nga xamante ni si mooy njëkk mooy ci diggante doomu jalika bi Amina ak Dior tey d'habitude xale dina toll yenn âge yoo xamante ni bu séparation amee ci diggante parent bi rek li gën mooy mu des ak yaayam parce que souvent yaay ñoo ëpp toppatoo ci xale yi nga xamante ni dañu am yenn âge biram forcante na ak jalika ba mu bàyyi ko ak doom bi mais tey déjà toppatoo bi ci war defu ko te ki nga xam ne moom la takk muy joor aussi tamit gis ngeen ni muy xatale xale bi ci biir kër gi te loolu c'est pas du tout bon donc tey bu séparation amee ci diggante rek am na xale âge yu ñuy toll li gën mooy ñu des ak seen yaay nga xam ni laa au moins ñu ne mën a am toppatoo bi nga xam ni si moo war et que tamit ñun góor ni ñu xool bu baax fi ñuy dugg parce que tey bu ngeen gisee joor au bi ni meloon ak jalika tey ak ni muy doxale ak doomu jalika bi day mel ni comme li gars yi di wax rek dafa affiché indien dawal kaboy parce que ni mu wane woon au bi ak ni mu meloon nag euh, Jalika tey mu dikk di def nii doomu Jalika kon là ça pose problème alors nit moo lëndëm ba tax na képp koo xam te yaa ngi dugg ci dara war nga ko xool bu baax donte dina jafe nga xam li ci biir a biir a biir tant que dugguloo ci kumpalay ne ci yow mais aussi tamit jar na nga def le maximum possible pour mën a xam lu bari ci nit ki avant dugg au moins ci moom donc loolu moo nekk suñu premier point maintenant suñu deuxième point ñu ngi ko jëmalee ci diggante Marème ak Cheikh Marème bu njëkk yaa doon nangu Cheikh di bàyyi laal la këram di ñëw ci yow ba bu la fóosee sax nga merci tey nee nga Cheikh dafa guddee danga koy takkali pot mais foofu liñ ñu fay jàngatee mooy jëfi démbam moom lay fayee ko tey jii et là aussi tamit Cheikh même chose parce que déjà ma xam na plan bi mu doon teg yëpp pour di ñëw ci moom donc du ku bu tegee plan rek ni dafa guddee wàcc xëy na sax dafa guddee wàcc mais ma du ko mën a gëm parce que lan la lim ko wanoon la bi ñuy génn ñoom ñaar moo tax à chaque fois nit ki booy génn ak moom wan ko loo xamante ne si ni noonu nga mel dëgg-dëgg bul tricher benn yoon wan ko li nga xamante ne si ëllëg bu ñëwee bu seesee ci kër gi dina la ci jox cër dina la ci fonk mais boo ko wanee ñàkk fayda rek bu dikkee même boo nekkee ci dëgg ku ñàkk fayda la lay jàppe loo def mu jàpp ne da jàddoon ci keneen lii nag mooy conséquence di def te doo sóoraale parce que bu doon sóoraale yaakaar naa dina xalaat ni ëllëg bu takkee mareem kaa yu mel nii mën na am parce que fii nii képp kuy liggéey parfois di nga am benn retard sa liggéey nga yéex a wàcc wala yu mel noonu donc boo dépassé tuuti heure bi nga doon wàcc fekk ak li mareem xam yëpp ci Cheikh day jàpp ni kon daa am ci lum jàddoon moo tax képp koo xam te ne yaay nekk ak nit day baax nga di ko wan exactement ni nga mel da nga wan ko loo xam lu jub la boobu ëllëgee boo ko takkee yaakaar naa doo am benn jafe-jafe ak moom ci cadre bu jëm ci loolu alors tey loolu moo nekkoon sunu analyse donc ñu bàyyi leen ngeen déglu commentaire internaute yi ak lan moo seen xalaat ci épisode quarante bi mais avant boobu am na quelque points yu ñu bëggoon a leeral donc dernier temps yi nii jot naa quelques messages ay quelques personne à près ay cinq personnes yoo xamante ni si nee nañ ñoom bu ñu envoyé seeni réaction ba pare après duñ ko dégg ma leen di signaler que ni tey parfois bu benn épisode jeexee li may jot ci ay message day mat deux cent messages am na ci ñoo xam ne dañuy envoyé trois vocaux ñii cinq vocaux et cetera am na ci nag vocal yoo xamante ne day durer parfois ay neuf minutes ay vocal cinq minutes ay vocal trois minutes donc soo bëggee jël loolu lépp boo ko télécharger boo ko convertir ça prend du temps loolu moo waral des fois seen vocal yi di yéex a dugg mais aussi ma leen di signaler que ni. comme vocal yi day bari donc mënuñu jëlandoo lépp def ko benn vidéo sinon kon day nekk vidéo boo xam te ni vidéo deux heures de temps lay nekk wala lu ko ëpp donc on a préféré jël vocal yi di ko def par vidéo trente minutes donc plusieurs vidéo lay nekk mu nekk vidéo trente minutes mais dafa am ñoo xam te benn video la déglu rek dégguñu seen bopp daal ni kon dugaluma seen vocal fekk ni dugal naa ko ci yeneen vidéo yi alors tey ku déglu vidéo bi déggoo sa vocal mën nga déglu beneen vidéo bi di nga fa dégg sa parce que audio yi ñooy bari ba tax na tey jii nii duñ mën a dugal loolu lépp à la fois dañuy préférer di ko dagge di ko def ay vidéo 30 minutes comme ça yëpp mën a jàll mais képp ku ñu envoyé vocal dinañ ko télécharger dinañ ko convertir dinañ ko boole ci yeneen vocal yi dugal ko incha allah parfois nag xëy na yàlla mën na def ñu fàtte benn wala ñaar parce que nit matul mais bu amee tamit ñu ngi jégalu parce que suñu yéene mooy seen xalaat yi ngeen jël diñ ko jox ñu mën ko di jàllale. parce que li waral tey ñu créer lu mel nii c'est pour permettre ñi nga xam ne ñi ngi seetaan série yi bëgg di jàllale seen xalaat ñu mën di ko jàllale alors encore une fois ñi ngi leeral aussi que tey képp koo xamante ne si nii da nga bëgg a joxe sa commentaire rek envoyé ko directement ci numéro WhatsApp bi mais du groupe donc nit ñi ñoo am habitude di nekk ci ay groupe rek ba tax na bu ñuy vocal rek dañ naan waa kër gi ñu ngi leen di nuyu wala waa groupe bi ñu ngi leen di nuyu yu mel noonu mais du képp ku am loo xam te ni da ko bëgg a commenter rek envoyé ñu ko directement suñu whatsapp incha allah dinañ ko jàllale donc point boobu lañ bëggoon a leeral avant ñuy jàll tey maa ngi doon ñëw ci Marème Marème moom macha allah li muy indi lu am solo la ak xaritam boobu Amza Amza tamit li koy conseillé macha mi ngi koy jàppale ci sëyam daal moom waaw ni mu koy euh, li muy def ci moom jafe na ci xarit léegi ni ñu def ci seen xarit ndax xarit léegi moom dañ naan xarit sax amatul na waaye moom moom mi ngi koy conseillé lu baax mu ngi koy kii ndax am na si si film bi sax comme Jalika xaritam ni mu ko def joor gis nga joor ni mu def Jalika noonu ah te ñoom ñaar euh, Jalika da ko wóolu woon jox ko confiance bu mat sëkk te gis nga ni mu ko mujjee def ah yooyu yëpp dañ koy gis mais ñoom ñaar ñee daal moom macha allah la xëy na loolu du seen diggante waaye laala tamit sama xarit la woon ku film bi doo ko commencé mais léegi daal mi ngi am changement moom. ah man de awala ah, mais ni muy doxalee ma man Marème daal muy deuxième femme ni muy def man ni muy doxalee man loolu moo ma neex jigéen da ngay oyof waaw sa jëkkër lu mu bëgg nga ànd ci ak moom ko ko loolu moo lay noppal waaw liñ naa lii am za kee xaritu Marème bi li mu doon wax naan eh, teel a nangu da yombali dóor waaye loolu dëgg la de teel a nangu da yombali dóor daa war a teela nangu nag nangu affaire rek mu yomb si moom te tamit doom ji yi mu koy defal man li mu koy defloo man neexu ma Euh, xale doo ko jàngal nettali doo ko jàngal muy xool loo xam ne waru koo xool doo ko dugal daal ci affaire kii comme diggante euh, sa ci moom ak papa ji ak ak mareem moom yooyu xale bi yoonam nekku si yooyu waru see dugg waaw laal daal foofu moom mere naa ko fi yooyu moom daal du noonu waaw mais firme bi moo laaj loolu daal mais kee tamit euh, doomu jalikaa bi nekk fee kër papaam moom tamit gis nga ko mi ngi am tuuti jalousie ci joor tante ji ndax moom mere na joor lool ndax ni daan gisee ne xaritu yaayam la affaire yooyu mu dem ba miin dool mujjeewul lu dul ñëw sëy si kër papaam xam nga loolu tamit day indi jalousie si xale bi waaw mais moom boolewul daraay wax moom wax moom day jëf bañ na ko ba joor te léegi tànta ji dégg nga lu wax nee na moom du ko faale lijjantiwu ko daal waaw moom tamit mi ngi commencé am jalousie moom it surtout entre xale bi mais du noonu daal ab en tout cas daal film bi neex na macha allah kontaan nañ ci lool jërëjëf. asalaamaaleykum maa ngi nuyu baax di ziar di nuyu ñëpp rek euh, di wax ne euh, maîtresse d'un homme marié série bu neex la macha allah ñëpp ñu ngi koy suivre daal mën naa wax loolu parce que dafa am solo te neex na waaw ndax euh, liñ ci indi lépp am na njariñ macha allah xanaa di wax Marème moom kontaan naa ci moom lool Marème moom dama koy seetaan di reetaan di am njàngat si moom jëlee lu bari si moom daal parce que. xorom na te li indi tamit luy am solo la dangay xool bi ñëwee si hôpital bi noonu ànd ak Cheikh ni ñëwee ak wax ji ni ko commencé ak fi mu daanelee ah am solo bi am solo macha allah xam nga loolu yëpp jigéen yu bari mën nañ cee jàng jigéen ñi sëy waaw nettali bu rafet ci sa mbokk ji loolu dafa am solo macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa loolu xew TV bi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen leen ñaar jàmm. day wax ne ñun série bi ñoo ngi koy seetaan bu baax a baax diñ koy topp wax dëgg neex na lool am na solo lool am na ay yeete yu baree bare boo ko toppee moom xam ne am na yeete yu baree bare ndax man Marème Diallo li ma koy wax rek Marème moom li ma koy wax Marème Diagne maanaam li koy wax mooy maanaam mu defaraat toogaayam bu baax a baax te bu mu tudd seex ci yooyu ndax itam xam nga nag seex na xam ne nag Marème ni mu ko toppee woon ak yi mu doon guddi yooyu yëpp bu ko bëgg a defaree Marème du ko nangu sëy bi du ko na sotti na bàyyi doon ndax Marème commencé na nekk sëykat kon nag continuer di sëyam rek moom bu ci continuer ndax kaamam boobu man damaa gis ñum laal ñoo xamante ne noonu nga xam ne da ko meer jaañ bañe ak di ko laal la bañe fi dool moom bu góorgóorloo da rek bàyyi seex noonu am bi mu bàyyi xelam seex dina dem ba du ci gëm meer jaañ ak laal la te boobaa moom sëyam mën naa continuer neex doom jeet na ci continuer comme ni mu def def ko doomam rek na ko continuer mais joor moom moom li mu def noonu xale bi léegi man ànduma ci ànduma ci moom itam boo bëggee bàyyi da nga bëgg doom ku bëgg bàyyi da nga bëgg doom kon ginnaaw bëgg na bàyyi bëgg ko sëy na jéem a bëgg doom ji te xam ne bàyyi bi doom ji rek la am même biram itam xale bi ni mu defoon barki démb war na koo aaye comme ni mu defoon kar fekk liñ ci nekk ñoom ñaar loolu xale du ko def baaxut ci xale loolu xale waru koo def loolu laa ci a mooy commentaire jërë leen jëf nuy naa leen lu bari di leen jaare di nuy yépp kuy seetaan maîtresse dama lay nuyu lu bari di wax ne kontaan nañ trop ñaari épisode yu passé yëpp dugguñ waaye bu 40 bi seetaan nañ ko tey macha allah neex na trop neex na trop macha allah euh, man daal dama kontaan ci série bi daal kontaan naa ci baax a baax maîtresse daal kontaan naa ci bu baax a baax di wax ne daal man daal may rek moom may daane daal man ñaareel xaritu jëkkëram moo may daane gis nga góor moom lépp loo xam ne du jàll rek jaru nga koy may lépp loo koy may rek na nekk mu nekk ca teel ba waaye nga may ko loo xam ne du noonu nga dem ba ci biir boo ko dindi day fekk mu paas doo ko mën a dindi kon loolu day indi ay erreur seen diggante waaye soo ko teel a xamal na ko lii mooy continuer ak lii moo continuer rek mun na am sëy dina neex kontaan naa ci waa maîtresse trop kontaan ci moom di wax ne laal bu ñëwee ci kër gi. ne uuf rakkam nga xam ne wujjul dara boo ko sa rek la buñ déglu seen goro bi bum topp goroom ndax goroom du nit ku baax róor bu ngeen mënti joué nag bu nekk rek am na ci senegal am na ci àdduna bi yëpp ndaxte goro yi buñ noonu yemale këri neex waaye sa doom kum bëgg rek danga war a bëggale waaye sa doom warta bëgg ni kii nga bëgg kii bañ kii loolu warta mën a nekk ndax góor am na droit am ba ñeenti jabar jullit kon nag ñu jox ne laal la yow boo ñibbisee wuufal sa rakk ngeen nekk si jàmm kër gi neex sa jëkkër lu wuti daf koy am kër bu amee jàmmu rek borom kër ga lu mu wuti daf koy am daf koy yomb waa kër bu fa finna di ay eewo bu nekk borom kër gi day wut ba sonn waa du am wala am am du dem noonu kon nag nañ ñëpp bokk ndey bokk baay wujj yëpp bokk ànd juboo nekk benn seen jëkkër bu amee rek day mel ni yéen ñëpp am ngeen kër ga neex man daal loolu daal lay conseil bépp jigéen di kontaan ci yéen di wax ne jalika doom bi nuñ koy def naqadi ma tooram naqadi na ma man moom xale bëgguma ku koy def yii moom moom foofu moom xol bi tooy na trop moom dëgg yàlla man xale bëgguma ku koy def yooyu waaye daal kontaan nañ ci waa maîtresse torop waaw. salaamaaleykum waa maîtresse de marié maa ngi leen di nuyu moom neex na trop moom heure moom bu commencé bu jotee moom ñun ñëpp koy suivre waaw kenn du des neex na moom. waaw Marème na dangaa war a xam ne nag bor bii nag loo leble woon la il faut ñu fay la ko Cheikh danaa ñëw sa di la woowee Moodu mécanicien ah bu mu fàtte loolu nag dana la fay bor bi moom waaw bor moom dina ko fay moom film bi neex na trop seen liggéey rafet na yal na leen yàlla lafal cat rek waaw yal na leen yàlla lafal cat. asalaamaaleykum asalaamaaleykum sama waa sama waa groupe mbaa yéen a ngi ci jàmm joor lii moom du sa cër joor feyool naar bi xoromam joor yëngal nga tey xolu yaay yi bàyyi seen doom yi ci néegu sëy dem seen yoon parce que lan la ñu ngi leen buggal ci sëy yi ñu jóg dem yow tey yaay bu ne ci na tey ci doomam bu mu bàyyi gannaaw yaay bu ne ñaan nga yàlla nga des ci sa néegu sëy ba mu say doom mais léeg-léeg ñu bundu xatal la ba doo mën a toog ak sa njaboot nga jóg nga ne ak ah, xaaral ma dem feneen li nga def dara rafetu ci xale bi le du ma mag yaayam massa du ma mag yow xale bi le danga ko war a jàppale bu baax a baax a baax a baax waaw marem marem yaa ngi bëgg daanu marem yaa ngi bëgg daanu nit moom loo def dëmb nag jàppal ni dinañ la ko fay mais yow sa fay dafa teel Cheikh dafa liggéey woon journée yi dafa am journée yoo xamante ne day chargé mu am ay journée yoo xamante ne macha allah day teel a wàcc tey moom daanu ka tey moom moom moom moom moom moom noo mer mer mer jógal taaj reer bi masa nag dirante nga mbagg jànq bi ci waañ bi dangaa war a motali li tax ngay dirante jànq bi ci waañ bi sa goro moom ku mu bëgg dugal ci làngu bon bokku ci waaw nam ma jégal nag ci wax bi sa goro moom ku bëgg a dugal ci làng boobu moom xamul ay sëriñtu gis nga ko moom dafa fashion moom day defar ba mu baax di traité ay chefam fii jigéen bu fi am karaw rek stress moo la daw gisoo karaw bi nu mu daanoo macha allah bu ko duggal ci fu waaw pour ñu jàppale laal la laal la jeexal na wax bi laal mu ngi di ndeysaan jàpp yàlla di wuti ji marchandise di liggéey liggéeyam du dëgg ak ah, rek kontaan rek macha allah rafet na rafet na rafet na. ziar naa leen ñu koy téye bàyyi nañ ci jàmm waaw seetaan naa ko nag seetaan naa quarantième épisode bi am naa ci benn jàngat tuuti rek bu diggante Cheikh ak Marème parce que Cheikh bi muy génn ak Marème da daan faral di tàggoo ay moodu mécanicien affaire yooyu noonu xam di guddee àll. léegi Marème loolu lay gis day jàpp ne Cheikh bu guddee rek dafa jàdd feneen waaw moo tax lu nit di di def lu nekk rek da koy xool waaw nit di def rek da koy xool parce que instant bii nii geste bu mu def bu ndaw rek guddee bu mu guddee rek Marème lay jàpp ne dafa jàdd feneen loolu la waaw mais am na solo trop am na solo trop trop macha allah mais ñu wàññi français bi quoi. ñu wàññeeku nekk cent pour cent a bañ a bari trop. Mhm. salaamaaleykum salaamaaleykum ci loolu ne bàyyi ñëwaat ci série bi maîtresse am lu ci waxaat ah, wax tey série bi dama am lu ma ci metti ndax su ma sañoon joor du def xale bi noonu. parce que fii xale la rek xamul dara ak lu ko yaay ji mën a def xale bi war ko wana def noonu wax fa yàlla war na xool ne moom xale la xamul dara tey mook yaay ji am na trang buñ seq moom defal na jalika lu ne wax dëgg fa yàlla te fekkee loolu dëggu ci moom ak lu ko jalika mën a defit mu comprendre ko xam ne fi ko afeer bi tollu la dëgg yàlla foofu moo am naa ci lu ma metti trop mareem nag tey tamit kontaan ma ci moom dëgg la xañ na day bañ fi mu jaar ak seex seex dem defaat ko feneen mais tamit na ko jox mu reer rekk na ko jox mu reer ba suur soo ko wax moom ci cadre boobu mais ni mu ñëwee noonu rekk mu dal ci kawam wax afeer yooy xam nga te joxu ko reer naan ko reer ben ci waañ bi yooyu yëpp day wàññi ay poyam ci man boobu bu ko laala ree bu ko laala ree daal na góorgóorlu na góorgóorlu yu bari mu di ko moytu te mu moytu goroom parce goroom moom fu ne ma dama tiit ci moom tiit naa ci moom trop parce que lii mu wax nii bu sàgganul dina ko def ndax meer moom yàlla dara tëwu ko dara tëwu ko ok mbaa jàmm ngeenam yéen a ci jàmm bu baax maa ngi leen di nuyu yéen ñépp bu baax laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di ñaan yàlla sunu sama kàddu fekk leen ci jàmm yéen ñépp képp seetaan fi ak képp ko déglu yépp maa ngi leen ci maa ngi leen di ñaanal jàmm yàlla mi am jàmm yàlla leen jàmmal jàmm yéen ñëpp kontaan trop macha allah kontaan nañ waaye tey moom dëgg yàlla moom joor laa mere moom parce que joor moom kon li mu doon woote si jëlikaa ndekete moom loolu dara du si dëgg daf ko mbubbu woon rek mais ni mi def doom ñoom ñaaw na trop trop trop trop fitul dara te xale moom doon na loo xam ne du fàtte daal xale moom doon na magasin boo xam boo fa jëncee du mos a yàqu li nag gone loo ko def si bi muy xale bu nekk fii bi nekk mag loolu du denc moom kon nag joor wax dëgg yàlla def moom dara dara rafetu si Mariam tam warut def ni mu def seex waru koo def ndax seex bu demee seeti leneen da koo fay borom nag dafay bàyyi woon moromam dem seet leneen kon moom tam léegi bu seetee leneen waru koo metti waru koo def dara te ni ko teeroo tam baaxul ndax sa jëkkër loo ko meree mere heure bala mu laa laaj reer sax war nga ko indi reer reer bu suur ba pare loo koy wax nga koy doog a wax mais Marème defi foofu tam weere na tam trop waaw waaye li sës yëpp nag moom kontaan nañ moom maire bi nag moom jërta wax parce que moom àdduna dina ko yaral boppam dina am bis boo xam ne du ko bokk kenn ndax amoon na bis boo xam ne Marème moo ko ci mooy bindoon naan Marème dinaa fexe ba nga tàggoog seex seex yem ci jour boobu Marème moo defal lépp ndax mënoon naa weer mais nag dina bis boo xam ne maire bi na am bis boo xam ne du ko bokk ak kenn kenn kontaan nañ trop daal macha allah képp kuy doon seetaan daal war na leen di seetaan képp koo xam bëgg ngaa aw si yoonu baax daal war na leen di seetaan ndax dëgg yàlla moom seen film bi am na njariñ yàqul kenn njariñ da nga si jële ndax heure boo ko seetaanee rek di nga ci xam ne njariñ nga si jële kon nag yal na leen yàlla defal jàmm ak salaam jërë ngeen jëf kontaanati na jërëjëfati sargal ñëpp di jaajëfal ñëpp di ñaan yàlla yàlla may ñu taw féex yàlla defal ñu mucc ak mucc la dàqal ñu lépp lu ñu ragal dañu dañu lépp Sénégal yépp am jàmm mu loolu passé ma ñëw ci maîtresse ci série quarantième bi ah, di nuyu ñëpp nag ah, di wax ne eh, man daal man mënuma comprendre ah, tey moom maa ngi wax ci kii joor moom tey jii moom li muy wane nii mooy wane ne kon moom bi muy naan xajarika xaritam la doomu ndeyam la kon moom dëggu wutoon ci moom ndax même bu même bu yàlla dogalee lii tamit mën naa naa jàppe Amina comme ni mu ko jàppe doomam la waaw biram daal na delloo ci Amina du ko dem jox yaayam du ko delloo yaayam doom ci jigéen moom ndeyam rek ndax gis nga ak tamit ki nga xam ne mooy Marème tamit muy commencé indi ay béy ngi na xam ne lim leble woon loolu lañ ko fay waaw ja ak jamono ci ñu toll Rocky muy rokkaani rek la mu defoon loolu rek lañ koy fay waaw naa xam loolu kon bu mu tëddee seex muy doxaan ndax fa fekkoon ci kër jàmbur doxaan ko ba takk ko moom ma rek moo ko ko kan nag bàyyi nag kii seex doxaan ba takk ko ah, ñëwaat ci ki nga xam ne mooy Racky Racky tamit moom it sama xarit la torop def na erreur def na erreur bu mag am na déception ci moom waaye nag du tee comme mag la rek na ko baal koy xam ne moom lu xew tey maa ngi leen bu baax di leen ziar waaw di wax tey nag ci série bi ah Marème nag ba mu xaslu ñaareel yi yow sëy si nga commencé nga fiir. te li mu tontu jëkkëram ah jigéen bu baax war ko tontu jëkkëram ndaxte kat laal la lu mu fiir fiir fiir bi mareem ñëwee ñu takk ko ba léegi laal la masta defarloo Cheikh reer te naa ko reer ba ca waañ ba masta am kon nag mareem pour tax ñi la soppoon xaw a teggi seen tànk man de ah voilà waaye ku la sopp laa bul tax li ma la soppoon ma wàññi ko ndaxte jëkkër danga koy jox cër te suturaal ka yow waroo indi benn scandale ci biir kër gi ndax da nga nekk sa nawle tey loo war def ak Cheikh rek war nga ko def ci en douce waaye du teggin nga di ko yebal ca waañ ba ngir mu dafa reeram foofu moom laa d'accord ma ak yow kaawu jëli nag moom eh, eh, eh, biram jabaram ju bees ji dama ko bañ ba ni ma yàlla baal ba du buuma sax tur turam mu joué nag dafa am waaw dafa am lu am la am am solo la def dangay gis ku li bolof njaay naan buñ dee wax diw na dee ci sëyam yu mel nii wa tax ndax boo demee bàyyi fa say doom bul xam kay ñëw lu muy mel tey lii war na yee képp kuy sëy si biir kër nga dee fa ngir sa njaboot maa ngi jégalu bu ma juuma ngeen jégal ma asalaamaaleykum waa panel bi maa ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram man la Maguette Diakhoumpa fii ci Italie madame Silla di leen nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di ñaan sama ojo bi leen ci jàmm man na fi bi maa koy doog a seetaan nii parce ba boobu léegi dama jàppoon moo tax waaye neex na neex na moom lool sax waaye na mareem na dekkoon na nga na dekkoon na lool lool lool yow tam burus lool na ñaareeli na yow ñaareel yépp yow lañ àndal tey nga doxale nii seex ak fu mu mën a dem ba guddi rek danga ko war a jóg toppatoo jox ko mu añ jox ko mu reer toppatoo ko daal xam nga léegi na ba dee moom na ba sa néeg na nga toog waxtaan ak moom waaye ni nga defee nii na mareem moom du ni man ànduma ci na bii moom doxut moom te yow xoolal fi ñu toon ni sa noon yépp a ngi taxaw na mareem sa yaay seex mi ngi taxaw fii mbokki laal la ñu ngi taxaw fii xam nga am na yoo xam ne mën naa ñàkk nag Marème sensé waatal si ñi nga defe moom tey baaxut baaxut de maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp na ma ñëw na si Jalika Jalika moom ah na dem seeg waayam jooju ma ne ko na dem seeg waayam jooju waaye nag xaritam bi bon na moom bu njëkk ba daan uuf xale bi di ko raay di ko neexal tey mu di ko dóor di ko def nii lii moom baaxut moom wax dëgg yàlla li mu def rafetut nangu na jëkkëri jàmbur kay na uuf ku bëgg bëgg baay kay bëgg doom naka ngay bëggee baay di bañ doom <laughs> doy na waar waaye biram gisagul dara ak jàllika dina ko dal bu baax a baax a baax a baax waaw ma ne ko dara yaay seextam tam ni mu doxale ni moom bañ na mareem de bañ na mareem lool sax waaye na mareem na na lu rek na góorgóorlu daal téye jëkkëram bu baax a baax a baax waaw na jërë ngeen jëf maa ngi jéggul na bu baree baree bare ndax wax dafa jafe mu ba dee juum naa maa ngi leen di jéggalu lu bare bare bare di leen balo ak jërë ngeen